Thank you eh kaay kaay kaay kaay maman xam nga lu ma lay xaw dama bëgg nga am jom sa tëdd ak sa jug beeg sa génn beeg sa dugg bi laa bëgg mu dàgg yaa may dégg dama bëgg nga def ni say moroom nga am jom génn sa néeg bi te dem wuti ji liggéey nga dem liggéey damaa sonn ci mag sama may ma 5000 may ma 10 000 may ma nangam dama cee sonn defal ni say moroom nga génn kër gi dem wuti liggéey dégg nga mu baax. yàlla bu la dee dog ci li nga wax waaye dafa fekk ni uti woon naa liggéey xanaa yàlla moo ko dogalul bu ma uti jee liggéey soo ma nee dangaa génn kër gi dem uti liggéey xanaa dangaa bëgg ma bon loolu nga bëgg fa man ma toog fii ak sama ñàkk toog fii laa yemale sama papa ba muy gaañ dalaa bàyyee xaalis pour nga may dundal yow ñun ñàkk sa la suñu suñu yaay ñu bàyyi ñu fi yow nga war maa dundal say jabar jital la nga ne man dina dem uti liggéey am yalla, yàllaay bu yalla, yalla yàllaay bu te yalla da am benen yapu bu bu lu tey tax keur gi len la lay xamal ma la fay genné parce que da nga fay am cieur mais lekk moom bala nga ko fay defet da nga genn dem liggéey ni say morom daani dole gennal keur gi nga dem liggéey ni say morom deng nga waaw ndax soma joxol ma lek joxoma ma man say ñaari jabar jital la moy na dem boni rek ndax man ca tama top. ba nga xamantene luma dem uti duma ko am. tàllal salam. yow may ma sama jaam gën a ma dara tàllal dama lay won tala salaam gis nga sa li moy sa jaam du lenen buma lako waxat nak yow de buma amé mag bu tol dol tol ni yow mama yalla ba sax si bokku gi ñu bokku waye bu bokku bu xaru daganon damay génn ci li nga doon ba mu set wicc wicc wicc ndax yow baaxoo ko di baaxoo ba ay jigéen a da jiital muy sa ñaari jabar yooyu bon ngeen bokk ngeen bon sama doomu ndey nag wéetal na moo tax it maman di ci suba la xëy jéem dem yoonam moom moom bu dëkkandoo néew du sawar ci kër gi. ah du a jubóog jëkkër bi moom jabar bi moom xaritam. ah yow kuy sa yaay. tante Marème. ah tante Marème mu baax mi waaw tante Marème baax na de kenn du tante Marème de. Marème kenn du moom de waay Marème waay. yàgg a baax de xamal nañ ko ko moom moo baax de mag bu jaaxle naroon koo génnee nii nga ñëw jox ko enveloppe wokkatu ba dara geesu gis nga yàlla fi nga nekk nii lay envoyé ay résultat muy génn dama ko naan noomu nii yàlla suñu borom de bëcc bëccëg comme guddi ci moom kenn du moom moo yor lumière di leeral lépp man yàlla laa dénk sama bopp da ngay dox mu dab laa xewal nga toog mu dab laa xewal kenn doy suñu borom kenn du moom kenn du moom de ma ngeen kompuluk seeni jëkkër di defanteeg ñoom waaye la ma fi indi loolu du man ngeen di defanteel ne ngeen da ngeen complo seen jëkkër bëgg defante ak man waye bayana ak yalla suñu borom kër gi nak ñun ñaar la ci suñu papa fi lañu bayil kër ji waaw kenn du yalla suñu borom kuy ak mom rek nga xam nit nga ngaa ak mom nga gañe waaye yàlla ku ak mom perte man nak yalla la andal da ngeen andal seen di diir mbag di complo dima def yi fi soxal waaye kenn suñu borom suñu borom kenn du moom ba ngay wax dangaa warul suuraale yàlla suñu borom ba ngay wax laa ne nag kenn du moom am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur te yàlla daa am beneen yàpp nag bu gën kee cax yow nag foo jëlee xaalis bi nag loolu sa yoon new si ah. xam naa ni ngeen toogee nii amagu leen loo leen di ndogo mama da nga liggey won wala foo demoon. Ah. man ngeen di defante ne ngeen da ngeen complot sen jeuker beug defante ak man waye bayana ak yalla suñu borom. amu leen ndogu ni ngeen toge ni la xamne ne amu leen ndogu moom mu sol balaawam rek di melni ni l'islam bu day ke tamen mala kay lay waja ñew del si nga wax ñuko man kenn jël seewul waye man namuma dara. fof la bëgg ndogo si yow. man tay xama fu may fe la jëm fa sud la jëm dem ndogu ji ma allah to cons ba mu très bien. salaamaaleykum. maaleykum tante maman So yaay moo yéen mooy da jum ci xaas bi tante maman so la wax ma jox ko. ah ma fi lol ken du ko wax ma fi jum ga de. ma fi man sama sirno? sodal dal. tuddu tutu sodal mama Aris la tuddu non bi mama yow xam nga luy noonu noo mooy eh. sant jox joxal kii Aris kii dafa juum joxal lii maman Soda Ndiaye leen ko yónni jox ko lii mu dem sa sant Guèye naan Aris maa fi sa yaay juum na de eh joxel waay joxal waay indi sa yaay ne ko voilà demal dama yóbbu eh, c'est fier de toi. Eh, jugal jugal jugal ndox mi gaaw jugal jugal jugal sax seen eh, daanu wuy ma bu fi indi ñeenti mburu de ñetti mburu laa rek kii may wax ak moom naan ko tippoo de comme seen daanu la wax nañ ko def seen daanu nañ ko def en tournoi